waxtaan nañu ak opérateur yëpp pour que ren ñu denc jiw pour dewen parce que bu ñu ko dencul dewen ñu béy bu loolu weesoo maanaam suñu usine boo xam ne mooy Sonacos mooy defar diwlin dinañ ko dooleel am na capi xaalis pour jënd gerte weeri fanweeri dina ñu def lépp pour que mu jënd gerte mun a def diwlin société bi mu moderniser ko mu gën a mën a accompagner béykat yi année yi di ñëw ñu ngi ci étude pour restructurer son de finance Madame Jess ko président moo instruit, ko instruire ñu ngi acteurs vous bu la yàlla structuration pour filière coton bi ñu un a la euh, concurrence maak bi wax Chine. non concurrence acteurs sont dinañ am wall na nga def li nga war a def jàmm ni ñooy boo ko nattee ci suuf mun nga wax amuñu ko mais li ñu am gëm nañu kenn xalaat woon ni mun nañ ko am te li ñu am gëm nañu aussi ni fii ba at yu neew dinañu am loo xam autosuffisance xëy sax ñu mun exporter ci yeneen dëkk yi.